voilà ñu jël coordinateur non non non chargé de relations extérieures Pastef ICAT. voilà ce qui s'est passé aujourd'hui ici à l'ICAT moom mooy ne waa étudiant Pastef ñoo dajee di waxtaan seen mbir étudiant Macky Sall yi ñëw daal dañuy attaqué te c'est pas la première fois bi mooy troisième fois consécutif ci tegaloo bi si njëkk la 8 juin bii passé la ba ñu war a def manifestation ñu fekk ñu fa damm suñuy pancarte daal di ñuy dóor génne jaasi ñun nag ñu woo leen si voie si jàmm la PF suñu loolu la ñu jàngal beneen bi mooy ñu waaj fekkaan ñu daal di ñuy génn laat ay jaasi armée blanche te xam nañ ne les autorités dañoo complice lañ si mbir mi parce que bii nii c'est pas la fois mu ñuy dal te ñoom université bi yëpp am na ay caméra de surveillance ñoom suñ bëggoon a détecté ñi ko def dinañ génne seen caméra de surveillance yi xam kan ak kan a génne jaasi ñun su nekkoon ñoo ko génne ñun en tant que opposition heure bii nii ñoo ngi dugg seet ñun loolu xam nañ ko kon li ñuy wax li ñuy lancer autorité yi mooy lii day dagg sinon ñu def comme ñoom li ñu def armé wu comme ñoom daal di suñ ñëweetee ñu jàmmaarloo affrontement am lu fi xew nag boobaa ñu xool kam ñu xam ka mooy responsabilité actuellement nii nii nii médecin bi lu ñu jot a wax ne ne ñëw nañ ko ba pare faaw ñu évacuer ko daal di koy scanner kon xam nga ne loolu moom li mu wax dañ ko gor dañ ko dóor dañ ko dañ ko gor moom actuellement moom li ma wax laa li man a wax comprendre nga moom nee na rek gars parce que gars yi dañ ko sëkk yor ay jaas yor lu nekk daal koy dóor mu daal di actuellement dañ ko ñëw xam nga ñëw bu yàgg bu jël une heure yi te actuellement lépp lu ñu wax ba naan évacuer ak scanner loolu nekkatul blessure boo xamante ne blessure bu lii la kon loolu na nañu xam ne lii nii mënatul continuer te ñun tamit nañ jël suñ disposition ba pare daal di armé wu suñ président li ñu waxoon dafa leer bu ñu tooñ mais ku ñu tooñ nañu fayeeku ñun fayeeku wuñ ndax lii mais dañuy armé wu fii ku nekk bakka nga ak ak deret kon nag euh, ñi wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy les responsabilités nga commencé si DG COUD mu Maguette moom mi nga xamante ne lépp moo nekk COUD lii di xam na ko moom DG su ma déggee bu baax xam na li ma ko wax premier jour res ba amee dama ko envoyé message boobu ba léegi répondre ma kon moom lépp luy xaw si espace bi xam na ko parce que moom mooy autorité compétente bi nga xamante ne moom lañ fi teg kon loolu ñoo ngi koy lancé benn message boo xamante moom lañ koy jox en tant que DG Goudou